muy Maulana Cheikh Ibrahim ñu ngi ñëw fii tey suñ kër papa suñ kër euh, sëriñ suñ kër lépp muy suñ papa euh, oustaz Barham Niang ñu delluwaat ak mbokk yi ci waajal Fass Baye Mahmoud comme niñ koy defee fan yi nii yëpp nga xam ne bët bu ser rek dana am kuñ dalal waaye tey jii nag ñuy dalal koo xam ne moom mën nañoo wax ne moom mësta tàqalikoo maam Mahmoud lu mu xam ci maam Mahmoud mën nañoo wax ne tim njabootam gi nga xam ne ñoom la jur ñoom xamuñ ko ci moom maam Mahmoud la nekkatoo nag euh, lu mu mën a wax ci moom daal mbokk yi seetaan di déglu du mu ci guddal du mu ci euh, wax benn baat dañ koy euh, jox kàddu gi rek su ko defee mu waxtaanal ñu ci mam mahmoud momu digantem ak maulana cheikh ibrahim ak ziyare bi ñi wadjal muy fas nek le 1er mai inshallah taala kon papa bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعي تابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن القطب المكتوم أبي العباس أحمد التيجاني وعن وارث أسراره ومقاماته ومراتبه مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وعن جميع خلفائه وقدمائه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيو لندي نيو تي دي لين دوكل دي جيتال سي نيو بي الخليفه الشيخ احمد التيجاني yàlla na ko yàlla may wér te mu yàgg fi lool te jàppandal ko lépp loo xam ne dafa aju ci mu wéel masroat procès yi nga xam ne am na ko ci pay buñ ko nuyoo nuyoo nañ mbooleem njaboot gi waaye ñu xaasal ci biir njaboot googu nag eh, al imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé ak mbooleem i rakkam ak magam e, di nuyu suñu jigéen Fatimatu Zahra te di ko ndokkeel ci bés bi waaye nag di nuyu suñu mag suñu xarit di suñu xalifa tey ci kër Baay Mahmoud muy alaaji Abdoulaye Mahmoud Niass ñu ngi koy nuyu moom ak mboolee mi rakkam ak jigéenam aki doomam te di ndokkeel suñ bopp te di leen ndokkeel ci bés bii e, yàgg naa wax ne bés la boo xam ne ci bés yi gën a màgg ci bési pay bi la bokk ndax e, bay Mahmoud e, ku ne xam na ni mu toll woon ci pay bi wax ci moom lu yomb la waaye it mën nañoo wax ne yombul parce que su fekkee li ngay wax danga nga ko bëgg a teg ci xam-xam eh, wax moom buñ ko bëggee teg ci xam-xam rek dootu yomb eh, waaye tey moom dama bëgg a gàttal waxtaan bi eh, tënk ko ci ay baat yu néew baat yooyu ma koy tënk. tey damay bàyyi eh, Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moom mu wax ci Baye Mahmoud ñun dañuy nettali rek eh, Baye Mahmoud ku ne xam na ne kenn la woon ci doomi El Hadj ñas te yàgg naa wax ne El Hadj ñas doomam yëpp ay awliyaa ulaay la nit nag buñ ko xasee ba jox si fa waliyu xam-xam ak njub yëpp a ngi ca biir loolu yàlla mayoon na ko alaaji Abdoulaye doomam yëpp ay awliyaa ulaay lañ kon ñoom ñëpp ay boroomi xam-xam lañ nit ñu jub lañ woon itam Baye Mahmoud eh, personnalité la woon boo xam ne ay yu bare baree bari la làmboo maanaa personnalité la boo xam ne ay xar-xaram yiñ ko mën a gis yu bari la yu bokkut eh, muallim la woon waaye murabbi la woon waaye nag itam humanisme eh, la woon boo xam amoon na ci humanisme loo xam ne itam neexu la nettali noonu la ko yàlla mooñe woon waaye wax naa ne léegi damay bàyyi Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu eh, mu waxal ñu kan mooy Baye Mahmoud Baye Mahmoud bi nga bi mu génnee àddina yoor yoor biñ ko doon denc te maa ngi sant yàlla bu baax Eh, ñetti nit wala ñeenti nit ñi mujj wax moom kenn laaj yor-yor biñ koo jëb di jëbal borom boromam biñ ko tëralee Baye dafa wax wax bu rëy dafa nekk tey jii bég naa mbégte moo xam ne su ma ragalutoon sos bidaa boo xam ne day niru bidaa bu ñaaw. dama koy def bésu feet moom loolu moo doon déggam ci dee euh, mu ne Mahmoud mii li tax ma ne tey bu bu doo bu ma ragalutoon sos bidaa bu ñuy bu ñuy buy niru bidaa bu ñaaw dama koy def bésu feet dama bég ndax mbooleem màndarga yi nga xam ne ku texe dana ko ame gis naa ko ci Mahmoud loolu nag boo amee mbokk mu mel noonu mu jox la gannaaw e, doo man lu mooy bég loolo tax ma ne dama bég naa tey mu teg ci ne Mahmoud mii mbiram temps bu nekk daf may fàttali mbiram Zubayr ibn al Awaam Zubair ibn al Awaam pour ngeen xam li baay bëgg a wax rëy gim rëy ak taar bi mu amee ak màgg gi mu amee ñu jéem leen a wax tuuti nag kan mooy Zubair ibn al Awaam Zubair ibn Awaam saxaaba yonant kenn la ci saxaaba yonant yi ñi gën a mag ci saxaaba yonant bi sallallahu alayhi wa sallam kenn la ci won doxoo nit ko xam ne ci wàllu deret moo gënoon a jege yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moo ndax moom safiyatu moo ko jur safiyatu Abdul Muttalib moo ko jur kon mook bàyyi yonant bi ñoo bokk baay yaayi Subayru mook bàyyi yonant bi ñoo bokk baay kon moom doomi bàjjanu yonent bi la ni nga xam ne ali ibn abi moom itam baayam mook abdallah mi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ñoo bokk benn baay moo tax ñoom ñaar ñoo ko gënoon a jege ci deret mboolem saaba yi Zubayr moomu nag doxoon jàmbaari xare joo xam ne kenn la woon ci euh, gawari arab yi nga xam ne dañoo siiwe woon euh, dañoo siiwe woon mën a war fas ba yàgg ngeen a dégg ñuy nettali ne ci xare badar moom ak miqdaat ñoom ñaar rek ñoo ci amoon fas ci xare badar itam ak njàmbaaram taxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam féetale ko aile droite bu xare bi jël miqdaad def ko ci aile gauche bi subayru moomu jaloore yu ne def na ko ci lislaam li tax nag bàyyi ne mbiram Mahmoud daf may fàttali mbiram subayru bu fekkee ci wàllu jege ci deret la mën naa am looloo tax baay di fàttali loolu ba tey mbooleem saxaabaay Baye ñi àndoon ak moom ay bokkam ak ñépp amu ci kenn ku ko jege ni ko bay Baye Mahmoud jege moom rekk ci góor moom la ci bokkat ndey ak bu dee jigéen bàjjan jaay rek la ci bokkat ndey ak loolu la bàyyi di junj ne aw ma benn kenn ku ma gën a jege ci mbokkam deret ni Mahmoud nit ki nga xam ne noonu la Subayru meloon ak yoonant bi sallallahu alayhi wa sallam waaye itam mu bëgg ñoo won ne Subayru moomu euh, yonent bi dafa wax ci moom ne li kulli nabiyin xawaariyu fa inna xawaariya Zubayru bnu al yonent bu ne am nga xawaar yi xawaar yi mooy ki nga xam ne daf laa jege di la di la di la dimbale di la di la di la euh, aat kooku moom la ñuy wax xawaar yi euh, yonent bi ne yonent bu ne am nga xawaar yu man sama xawaar yu mooy Subayr ibn Awwam kon su ko bàyyi ne su bàyyi ne mbiram max moo daf may fàttali mbiram Zubayr ibn Xawaam dégg nga ci tawaadu om dégg nga bëgguñoo wax ne kii mooy sama xawaar yi bi ma gënoon a jege waaye loolu rek la wax ci ñi xam loolu rek la wax euh, xawaari yu wax naa kim doon kon Baye Mahmoud nit la woon koo xam ne li mu def ci xaat faydu bi ak boroom faydu bi Eh, lu rëy la temps bu nekk dundam yépp ci loolu la ko jeexal ci ñi xam ak ñi xamut looloo tax looloo tax bàyyi seedeel ko foofa ne mbiram daf may fàttali mbiram Zubayr ibn Al-Awwam ngir nirale ko ko moom foofu ñu gis ne bàyyi duut moom kuy waxantu eh, lu mu wax rek loola mooy li nga xam ne lii loolu la gëm te itam loola mooy li am moom la jàpp kon fii la tegoon Baye Mahmoud Baye Mahmoud ci moom moo doon Zubayr ibnul Awaam loolu rek la bëgg a wax wax jii ma nettali nii eh, wax naa ne fañ ko tëraloon la ko waxee léegi ñi ko fekkee bariwul eh, bu paasee xalifaam tey El Hadj Abdoulaye Eh, su fekkoon ne tey fii ma toog nii moo fi toogoon di wax dana gën a mën a leeral lii ni ma ko gën a nu gën a rafet ndax eh, ñun ca booba jamono ba ko bàyyi waxee man ak moom jéem nañ di ko bind booba suñu arab yi sax dëgërut waaye jéemoon nañ di ko bind eh, xanaa ak suñ mbokk imam Bram ku te ca Kolma ñoo bokkoon di ànd mel ni ku bëgg di jéem a bind loolu waaye booba suñu arab yi dëgërut pour wan leen ne lii lu wét la euh, bu ngeen demee ci téere bi nga xam ne naaru gànnaar bi Mouhamad wul Cheikh Abdallah daf ko bind euh, nettali na fa loolu dama bëgg rek ngeen xam ne man li may wax teguma ko ci bakkan wala ay andiyaat yu bàyyeekoo ci man waaye dama ko teg ci xam-xam utal ko itam ay seede Baye moo wax ne mbiram Mahmoud daf may fàttali mbiram Zubair ibnul Awaam Zubair ibnul Awaam saxaabi yu bu mag boobu ak yi ma jot a nettali moom su fekkoon ne tey jataay bi dafa yaatu woon mayñu ko li ñuy jëkk a def mooy wax leen ay manaaqibu Zubair ibnul Awaam ak ay jalooreem ba pare nag won leen ne kii la bàyyi nirale ak Baye Mahmoud waaye nag li xaj ci waxtu bi rek loolu lañ ci mën a def eh, liñ leen di. ñu ngi leen di ndokkeel te di leen wan ne kon ñi ngi jëm ci bés boo xam ne mooy bés bi gën a màgg ci bisi pay bi tey muy bésu Baye Mahmoud lépp lu ci nit def wala lépp lu ci nit xalaat ci xalaat bu rafet loolu na leer ne luy gërëm loo baay la ndax lii ma nettali e, kon nag yàlla nañu ci yàlla yóbbu ci jàmm ñu fekkee ko ci jàmm e, ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm Eh, su fekkee amu leen leneen lu ngeen di laaj. macha allah alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax eh, di la ñaanal yàlla mu yàggal la fi di la ñaanal yàlla mu may la wér di la ñaanal yàlla eh, nga ànd njaboot gi tett leen ba ca kanam a kanam a kanam ndax tiitar nga ci pay bi tiitar nga tim ci xadara bi ndax tey jii nii bokk nga ci borom xam-xam yi nga xam ne. fii ci pay bi lu xew rek da ci bind da ci wax da ci joxe sa xalaat te alxalifa Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te may ko wér waxtu wu nekk rek mission bi nga xam ne moom la amee muy xadara bi waxtu wu nekk rek yaa ngi jàppalante ak moom di dimbalante ak moom te yooyu yëpp mu ngi jógee woon ca baay ya ak ca maam ya wax dëgg yàlla lim ñu nettali ci Baay Mahmoud nii gàtt na waaye bëri na maana ndax comme ni nga ko nettalee ne Zubayru ibn Awaam bu bàyyi demee boo koy melaleeg Baye Mahmoud kon loolu euh, rëy na kawe na te li nga wax rek doy na te daa nga ñu nettalil lu bari ci Baye Mahmoud enregistrement yu bari mi ngi fi waaye boroom xam-xam nga moo tax tey fi nga génnee mosoo faa génnee. dañoo ñëw rek nga nettali loo xam ne loolu la Baye wax te li Baye wax la ñëpp soxlo ndax moom mooy sëriñ boo xam ne lu mu wax rek dal di tëj loolo kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla mu yàggal la fi di ñaan yàlla mu dimbale la defal la jàmm ci zaahir defal ko ci baatin defal ko sa njaboot kon nga ñaan rek ñu tëj. yàlla nañu yàlla yóbbu ci bés bi. te lepp luñ fa ñaan yalla nako yalla nangu te ñi ngi ko yaakar ndax borom bes bi ku amoon li jabala e loolu beneen waxtaan la e, mën naa wax ne kenn la won ci ñi nga xamne dafa daan am li jaba ak di sopaniku du ben te lolu yalla mayon nako ko ko kon nak besam ñi ngi yaakar ne besu nangu ñaan la yalla ñu ci yalla yobbu ak tal ak man e, te jamal ñu lépp luñ ci bëgg a def yàlla nañu ko yàlla jàppanal bañ def ko niñ ko bëggee euh, rajo bii nga ak télé bii nga xam ne moom fii ñëw toujours euh, Kossy TV ñu ngi leen di ñaanal te di leen gërëm bu baax tey rafetlu seen taxawaay man daanaka temps bu nekk rek maa ngi ko jàpp di ko déglu ndax dëgg-dëgg yàlla ay document lay génne yoo xam ne e, pays bi soxla nañ ko ba tax na ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm te yaakaar nañ ne incha allah. fu télé ma sa àgg rek télé bi dana fa àgg incha allah ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan e, di ci jottaliku ci borom bés bi ak e, Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ak i xulafaam um. yàlla ñu yàlla defal loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.